tey nag dama ñëw baaxe jaamu yàlla yi yi nga xam ne ne dañoo se kayit kayit ba lëj wala ñu dugal kayit kayit ba réer wala ñuy wuti kayit nangu lu leen ko may di leen jaabanteloo demal demal demal demal wala ñu dugal ko lu yàgg lii tey boo ko defee lii may wax boo ko defee si wàllu kayit euh, surtout si fukki fan yi mujj si koor gi si biddiw boobu nga def ko si da ami kayit boo déposé kayit dana la jël lépp looy wuti sa wàllu kayit nag la wax boo ko defee danga ko am si fukki fa fukki euh, fan yi mujj si koor gi ma joxe secret bi bu baax wallahi dama bëgg ñëpp def ko képp koo xam ne sa kayit dafa tagoon nga jéem koo def ndax kayit yi mën a tàggante ko muy lan euh, ñetti baat la waaye baat yi dafa wute ndax di ngeen di jël baat yi ni ma koy waxee ngeen defe ko noonu wallahi képp koo def si wàllu këyit loola danga ko am wa jaxal naa min bayni aydihim wa jaxal naa min bayni aydihim wa jaxal naa min bayni aydihim wa jaxal naa min bayni aydihim moom ngay bamtu maanaam doon la koy bindal nga ñi nga koy bindal nag na nga bàyyi xel képp ku la koy bindal buñ jullee suur bu mu la koy bindal bu ñu jullee tisbaar ba pare suur boobu la la koy bindal mi ngi koy bindal cinq cent cinquante cinq wa jaxalnaa min bayni aydihim cinq cent cinquante cinq muy fa fataahu yow yàlla ubbi ma nga bind ko cinq cent cinquante cinq yooyu euh, def ko saafara nga wut juróom-ñaari pom juróom-ñaari pom nga xooj ko ci saafara bi génnee ko sarax ko juróom-ñaari xale yi jigéen boo dee boo dee góor xale yi jigéen boo dee góor yow nga jox ko xale yu góor boo dee jigéen xale yu góor nga koy jox boo dee góor xale yu jigéen waaw noonu lay demee boo paree nag nga jël saafara bi taxafu kaay sangoo ko ñetti fan boo ko sangoo ñetti fan nga xool at yi nga am nga génnee ko ay fooy balance wallahi loola ñëw bu dee kii di day lijjanti ko da ngay toog léegi ñu woo la wala nga dem déposé ñu jël la loolu moo tax ñun moom suñuy sarax moom dama ko yàgg wax képp ku ko def gis ko si sensé sarax moom nit ki dafa war a xam lan mooy sarax mu génne ko sarax kenn du ko tàntale waaw kon nag kon Foyekonte TV mi ngi noonu seen bu màgg bi di wax ngeen abonné si seen bi rek tey partagé vidéo yi